sifa sudori ya utori badurul budori badidiyai A'udzu billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa dairatu sifa sudur ñu ngi leen di nuyu di leen siaré bax bax di leen ñaanal jam tay di di jiite suñu bi ak siyaar bi xalifa général kulli murid Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal sunu borom yàlla na guddal fanam ta yok di ziar ñi nga xam ne program topp programme daayira sifa Sudur si sen sen YouTube bi ñu leen di nuyu di leen bah baax ke ande ak yéen mbokum talibé taalibe Lamp Touré daayira Chifaa'u Sudur bu touba mu melni ni bi nga xamné ne baaxoon nañ ko and ak suba bu nek ci da groupe whatsapp bu ci Chifaa'u dur ta muy jotaay bi nga xamné mom lañ wax yobul bes bi tey ñu tànnoon lenn ci wax bi sallallahu taala alayhi wa sallam si julli juróom ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam neena na kuy julli julli sunu borom dana la faral say bakkar yëpp ndax yaa ngi mel ni koo xam ne danga amee dex ci sa buntu kër bis bu set nga sangu si juróom yoon yonente bi sallallahu wax na loolu si julli juróom ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na julli juróom julli gu ci nekk day faral la ko jiitu ci ñaawteef li fekk bakkar bu mag amu ca manam bo digen, digen bo jullee tisbar digen tisbar ak suba julli juróomi day far ñaatu fi nga xamne mo moo si li fek bàkkaar bu mak amu ca bu dee nonu noonu diggante takusaan tisbaar bu timis ak bu dee gee mu ak hadith boobu nga xamne ne day wax ne ku julli julli juróom faratal ko suñu borom day far sa bàkkaar yëpp ndax ya nga melni ko amé dex sa kër yu nga sangu ma yoon ba tay yonnabi sallallahu taala alayhi wa sallam de len wax amin bu imam waxe wala dalin ci bir julli manam ko xam top nga ci ginaaw imam bu imam waxe wala dalin yaronte bi sallallahu taala alayhi wa sallama nee na dee wax amin ndax amin joji kep ko xamne ya ngi koy wax bo ci depok malaaka yi diko wax sunu borom dana la jéggal sa bakkar yu njëkk ak sa bakkar yu mujj muy amin gi nga xamne bu imam waxe wala dalin batay yaronte bi sallallahu taala alayhi wa sallama na julli mooy li ubbi aljana ubbi gu gaaw julli moy li nga xamne day ubi aljana ubi gaw batay yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam na ku samonté julli juroom di matal ruko yi di matal sujjoot yi di len julli ci seeni waxtu xamne ne julli yoy ci suñu borom lañu bayiko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam na def lolu da nga tabbi aljana batay yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam na kep ko xamne ne am nga ñeen fukki fan yo xamne ne bu ñeek du la raw ci julik mbolo suñu borom dana la bindal ak set ci sawara ñeen fukki fan yo xamne ne bu ñeek du la raw ci mbolo yaronte bi salallahu taala alayhi wa sallam nee na borom dana la bindal ak set ci sawara ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na gën julik kenn ñaar fukki daraja ak juroom manam meen yow kep ngay julli yaronte bi sallallahu taala julli mbolo mo gëne sa julli gogi ñaar fukki daraja ak juroom ba tay yonente bi sallallahu taala wa sallam ku jog jëm ci jakka jéego bo xam ne jéggi nga ko dañu la ci bindal ay yiw wala ñu la ci sipil ay ñaawteef ba ba ngay delusi si ko koo xam nga sa kër jëm sa jakka ja say jéego nu mu bi sallallahu taala wa sallam sunu borom dara ci bindal ay yiw wala mu sipil la si say ñaawteef ba ngay delusi ba tey yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na di gont ak xëy jëm ci jàkka ja bokk na ci jihaat ci yoonu sunu borom tabaraka wa taala maanaam di xëy di dem sa jàkka ja di gont di dem sa jàkka ja yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne yaa ngi def loolu loolu yi ngay def na nga xam ne bokk na ci jihaat ci yoonu yàlla sunu borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na bégal leen ñiy dox ci lëndëm yi jëm ci jàkka yi ci leer gu mat yawmal qiyaam